jëmee tuuti rek ci ay leeral yoo xam ne ubbi jataay bi rek lay doon bu ko defee ñu ko seq ñëpp mën a waxtaane li ñu bëgg a waxtaane ndax tey jii day jataay bu am solo ci ñun ndax ku ne xam na ne Touba ci at yu wees yëpp dundu na lu metti ci ay jafe-jafe ci wàllu assainissement ba noppi jëm ci waxtu yu jafe-jafe ndax xam ngeen ne lu kër yi gën a bari assainissement di gën a compliqué ndax ndox mi daan naan suuf si suuf si daan naan ndox mi bu ko bu ko dëkkee day gën a jafe ndox mi dootu amut fu dugg boole ci it xam ngeen li am ci mbirum réseau bi ba tax suuf si màndi loolu lépp bokk nañ li ko gën a jafe ba ci ñetteel te ëpp solo it mooy màggalu Tuubaa yi xam ngeen ne day wër di dox ndax bu ngeen fàttali ko lu jóge ñaar fukki at ci ginnaaw ñëwoon na ci biir nawet waaye dellusiwaat na ci dugg na ci te dana ci di ci gën a diggu at ñu jëm yëpp lu màggal gi gën a agsi nawet bi di gën a dugg ci biir màggal yi kon loolu tam jafe-jafe la te ni dëkk bi toll toll ñu woon bu jëkk kon day gën a métti yooyu jamono ni màggal gi di xate it daawuti xate noonu ci biir lool nag sëriñ bi nga xam ne mooy borom dëkk bi mu nekk ci loxoom bi Cheikh mu taxa xam ngeen ko ci yitteem ndax képp ku fi nekk Sëriñ Tuubaa rek sa taxawaay la ci jiitu mooy dëkk bi ak bi Sëriñ moom nag bi mu agsee xam ngeen ne yitteem jëpp da ko jëme ci dëkk bi mu itteel ko mu bàyyi ci xel lool ci biir lool nag moo tax ci atum ci décembre décembre deux mille dix neuf ci la ma yónni woon ci ki jiite réew mi ndax xam ngeen ne ci at moom bu ngeen fàttalikoo ca réunion ba ñu doon def ci ministre de l'intérieur ak bu ñu doon def njaarim fàttali woon naa ci ñu ko seq ngir ñu gën a joxaat yitte ak taxawaay bu mag Tuubaa mm-hmm. te bañ koo def rek lu tuuti. ngir xam ne màggal gi ak yu néew dana dugg ci biir nawet bi yàlla def na sëriñ bi bi mu ko yëgee ba bàyyi ci boppam xel mu yónni ma ma dem ci ki jiite réew mi di président de la République Macky Sall jottali ko yónneen def sëriñ bi leeral ko ko wax ko ni ko sëriñ bi bëggee ndax yaar mooy li ko gënoon itteel mooy assainissement bi ak ndoxum dëkk yàlla def nag ñu di ko tàmbali far korona bi dugg bu korona bi duggee mu indi ci jàllankoor moo tax at mu njëkk ma yaakaar naa jotuñ ci seq benn jéego mm-hmm. ndox mi it yàlla def na ñañ ko dénk ña nga ca di ko saytu noppeeguñ nag waaye itil ba la ci ëpp àgg na ñoom nag li ñu waxoon bu noppee da yooyu si ko sëriñ bi diglu ko lu ci sëriñ bi santaan loolu nag moom kenn du jiitu sëriñ bi ndax loolu yaakaar naa li mu ci waxal boppam bu yàggut ñépp dégg ko leer na wax ne bu toona sumb mburu yi di université bi kon ndox mi lay song te loolu li ma ko dégg ci moom ëpp na juróom yoon wax euh, président de la république ci boppam li nga xam ni def nañ ko ci mbirum assainissement euh, depuis 2012 ba léegi wala avant 2012 mu am réseau boo xam ni bu ñuy wax réseau de drainage eau pluviale moo ndoxu taw bi loolu nekk réseau boo xam ni mën nañu wax ni nekk réseau bu doy parce que gis nañ ay jafe-jafe yi nga xam ni ci année yi passé Touba ñu ngi koy jàqandoo ci ay inondation euh, daaw ñu tomb tombé vraiment ay ay taw yu xaw a takku nekkul rek Dakar nekkul rek Touba mais Dakar ak yeneen dëkk yi aussi euh, donc amoon nañ jafe-jafe trop ci vraiment gérer li nga xam mooy ndox taxu daaw bi alors li nga xamee ni lancé nañ plan ORSEC euh, président de la république mu ni ah lii kat comme demee na noonu léegi na def benn projet bu d'urgence mu yëkkati 4 milliards mu ne li nga xam ni mooy euh, bassin Kër Niang nga xam ni ndoxu tubaab bi yëpp foofu lay ñëw te dem na ba attanutul ndox mi wala ngaa ñëw ba Touba ba foofu ne ah li ñu mën a def d'urgence mooy ñu xool naka la ñuy yokk. li nga xam mooy refoulement bi saa à ndox mi war a dem fi nga xam ne foofu la dem mooy euh, bassin Darou Rahmane yi ci la ñu 4 milliards yooyu ñu teg ñaari tuyau benn bi kay pare woon na sax avant màggal bi mais ñu àggali ko pour ñaari tuyau yooyu pour fexe rek lépp li nga xam ne ndox war na fa ñëw ci euh, Kër Ñang mu mën a ñu mën yi mën ko gaaw yóbbu ci bassin yi nga xam ne mooy Darou Rahmane donc liggéey boobu yemb na. donc li ci des mooy président mu ni du ci yem parce que ñu xool ne rek toujours Touba ndox mi ci benn zone rek la koy la lañ ko lañ koy gérer mooy Kër daar wax Rahman moo tax moo xoon ni ah ci li nga xam ni mooy liggéey assainissement te ñu teg li nga xam mooy plan directeur d'assainissement te ñu amoon aussi yéene distribuer ko c'est-à-dire waxtaane kook waa Touba dañu defoon ko ci at mi passé plan directeur bu d'assainissement boo xam ni bépp dëkk bu war a développé yaakaar naa ci mbirum assainissement loolu ñuy wax plan directeur d'assainissement war nga ko am moo tax ci année boobu daaw ñu woote daje présidé par gouverneur ñu partagé loolu nga ñu wax lu ñuy wax plan directeur d'assainissement donc plan boobu nekk na plan boo xam ne bon lépp loo xam ne war nañ ko def ci assainissement ci Touba rek ci la ñu war a sukkandiku donc pour lépp lu ñu ci war def rek mu aw yoon donc parce que assainissement dafa nekk loo xam ni ah dafa nekk lu loo xam ni dafa war am yoon bu ñuy wax système d'assainissement fi ñu koy jëlee ba fu ñu koy yóbbu donc euh, dañ ko war a donc liggéey bi euh, ni ñu ko war a tërale mooy euh, ñu xool rek d'abord oyo falal li nga xam ne day dem Kër Ñang donc xool beneen réseau boo xam ni indépendant mu ñu mën a yóbbu benn partie ndox mi foofu donc bi ñu ko xoolee daal euh, ñu jógee euh, Kër Ñang Ndaamatu euh, Ngélemu mu am war am benn bassin foofu ñu demee ba Ngiraneen war am benn bassin foofu léegi ñu wut beneen bassin bi ñu wax bassin de stockage comme bassin Daaru Rahman bi ñu yóbbu ko ci ci kaw ba nga xam ni foofu dana mën a dana dana mën a dana mën a accueillir li nga xam ni ndoxu taw bi mën mën na fa nekk comme ni ñu defee bassin Daaru Rahman yi rek donc je crois que peut-être euh, euh, mon directeur de travaux dana ñëw euh, parce que yónni woon naa leen semaine passée rek ah ñu ñëw def benn visite technique ak Enan Chine ñu dem identifier li ñuy wax identifier des points point yi nga xam ni ci la ñu war def bassin yi réseau yi fa lay war a jaar ak fi nga xam ni mooy bassin bu mag bi comme ni ñuy defee bassin Darou Rahman bassin boobu aussi ñu identifier ko identifier nañ ko ba pare maintenant li ci des nag mooy ñu xool nag lañu commencé. li nga xam mooy étude topographie yi ak yooyu ba nga xam ni seen liggéey war na war na door alors benn fànn bi nga xam ni war naa ko ci dolli informer leen sëñ bi wax na sànq problème mu ndoxu nab bi parce que Touba euh, comme yeneen dëkk yi tu euh, Dakar am na gox yu bëri soo demee ci Rufisque ak yeneen gox ñoom aussi problème boobu lay am ndox mi day génn jëm ci kaw donc euh, même noor nii ndox maa ngi génn donc di war wane rek loolu mënul continuer ci fi nga xam ne dëkkuwaay la ah bâtiment yi toog na donc mënul en quelque sorte ndox mi mënul continuer di nekk foofu donc moo waraloon ni def nañ fi mission yu bëri ministère intérieur def na fi mission ànd ak ay structures yu bëri yi nga xam ni seen xam-xam màññ na pàcc na ci xam am seen seen xam-xam dem na ci li nga xam ni mooy mooy mbirum ndox mooy mbiram suuf moom seen xel dafa màññ ci euh, mbiram ressource en eau mooy direction planification gestion des ressources en eau ñoom ñoo jiite sax ci euh, mbir moomu ci mbirum mbirum mbirum mbirum euh, donc euh, ndox mi ci biir biir suuf donc ñooñu ñooñuy accompagner aussi ak Elansin pour que ñu jéem a xool naka la ñuy jéem a pomper ndox mi donc identifier nañu keroog lu mat fukki teen ak juróom-ñeent identifier ko ñu war fa def fu nekk benn puits de pompage donc su ñu defee batterie pompage yooyu ba pare ñu xool naka lañ koy pomper muy dem ci réseau ONAS bi ndox moomu mu dem ci kër ñang su demee ci kër ñang ñu mun ko refouler au niveau de Darou Rahmane donc suñ ko jàppee pendant deux mois trois mois balaa naaj bi ñëw je crois que lu bëri dana wàcc te loolu expérience boobu la ñu bëgg a doxal mooy première phase bi nga xam ne moom lañu ñu war def. neen ñoo xam ni peut-être dañu leen mën jàppale ci liggéey bi mooy entreprise mag yi may wax mais sous-traitance yi entreprise ñu ñàkk donc kooku peut-être dañ ci ñëw ak ñoom. ñun ñu encadré ñi nga xam ne peut-être ñoom mën nañ liggéey ak ñoom ci loolu ci liggéey ndaw yi loolu je crois que suñu ko encadré dana mën a dana mën a danañ mën a jàppale ci liggéey bi mais pour sous-traiter ci entreprise beneen entreprise bu mag ñoom dañuy wax ni ah taamuñu ci loolu donc loolu la ñu yebal loolu loolu la ñu sëñ Mbaye Thiam yebal euh, ministre de l'eau et de l'assainissement muy suñu kilifa donc ñu mën a jublu ñu mu gën a gaawee ñu mu gën a teele donc ak ci conditions yoo xam ne war nañu ko teg pour liggéey bi mën a mën a yemb di tàllal loxo Touba ci kanam ak ñeneen ñu xool naka lañ ànd liggéey parce que àndandoo boobu mooy tax résultat bi mën na nekk résultat bu efficace donc mu nekk système boo xam ne système bu durable lay doon donc ku ci nekk xam euh, réseau bi naka lay demee donc ku ci mën a def dara rek ñu xool naka lañ leen di orienté ñu ne ah suñ ko defee nii nag mu nekk benn système parce que ñaari système mënul nekk benn système assainissement rek kay mën nekk donc képp koo xam ni war nga ñëw bëgg liggéey dañuy xool nag seen ouvrage yi nag ngeen koy mën a lëkkaloog li nga xam ne moom moo fi nekk ak li fi war a ñëw loolu suñ ko defee rek donc lépp lu ñu bëgg ci nga xam ni mooy assainissement surtout ndoxu taw bi dañ ko mën a am. lépp lu ñu def rek parce que ay milliards du caaxaan donc suñu génnee xaalis bu bëri pour def ko ci li nga xam ne mooy assainissement war nañ ko def ci liggéey bu wér liggéey boo xam ni ay ati at lay duré. ba sunu sunu sunu sunu doom yi sax sunu sët yi mën ci jëriñu donc loolu mooy waral liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëgg continuer naam am li ñu ci def mais dañ ko continuer ak Enan Chine yeneen nag dana ñëw parce que sëñ bi wax na ko sànq donc il faut lii rek du doy pour ñu am satisfaction globale ci li li nga xam ne mooy assainissement fii Touba mais ñeneen partenaires ñu ngi intéressé wu aussi ci assainissement Touba donc noonu la ñu koy defee progressivement ba nga xam ni mbirum assainissement dana yemb au niveau de au niveau de Touba. waaw liggéey bi déjà door na parce que wax naa sànq euh, une équipe technique ñëw na fi mi àllarba àllarba bi paasa équipe technique bu ànd ak monsieur le préfet gunge leen ci terrain bi muy équipe bu Enan ak équipe bu ONAS ak équipe bu la wax naa ko sànq. DGPRE aussi benn structure la benn euh, donc euh, direction ci ci ministère de l'eau et ñooy ànd wala liggéey liggéey bi suñu jógee foofu. Euh, ñu xalaat ñu xaaroon nag kilifa gi jox ñu ndigal pour commencer de façon concrète maintenant beneen jeetaay aussi dana amaat mooy monsieur le gouverneur yaakaar naa dana woote benn CRD su wootee CRD nag ñu gën a yaatal ñu gën a yaatal ñi nga xam ni war nañ fa ñëw participer ci CRD boobu donc kooku aussi lu am solo la doon parce que am na ñeneen ñoo xam ne aussi war nañ ñëw déglu ah li nga xam ni mooy liggéey bi ñuy war a def ci Touba suñu jógee foofu nag ñoom ñu ngi def seen plan d'étude li ci des mooy ñu commencé travaux yi ni mu gën a gaawee en tout cas début mois de mai début mois de mai parce que ñoom commencé nañu andi déjà matériel bi ci seen bâche de chantier donc am na matériel yu nekkoon fale au niveau du projet de Foundiougne ñu ngi leen di commencé acheminer au niveau de Touba ak feneen ñu ngi leen di commencé acheminer au niveau de base de chantier fii au niveau de Touba donc cela veut dire que déjà euh, donc installation chantier bi commencé na déjà li ci des mooy donc ñu jublu rek ci liggéey bi ak ni ku nga xam ni planning bi nga xam ni Enanche euh, moom la ñuy présenté moom la ñu topp de A à Z ba nga xam ni ñu terminé ci li nga xam ne mooy euh, réalisation bi waaw délai d' exécution travaux yi euh, fukki weer la ak juróom donc fukki weer ak juróom-ñett donc dana ci étude ci la bokk mais fi ñu toll nii je crois que comme ni ñu ko waxee comme nawet baa ngi ñëw donc dañ def tout pour commencer fi nga xam ni ah suñu commencé foofu dana mën a wàññi li nga xam ni mooy Euh, gestion ndoxu taw bi mais su fekkee ne agul toujours comme ni ñuy defee dañuy mettre en place benn système benn dispositif benn dispositif boo xam ni euh, dana tax ñu mën a pomper ndox mi ñu mën ko yóbbu fi nga xam ne foofu la la dem pour wàññi carrément li nga xam ne peut-être yaakaar naa ni peut-être inondation wala am mu mën ko wàññi bu baax a baax donc mën nañu wax ni ci ñaari weer yi ñetti weer yi dañ def tout pour au moins teg fi loo xam ni rentable dana mën a contribuer ci gestion ndox mi mais waxuñu ne rek dana mën a pare du mën a pare loo xam ne trois mois sur 18 mois du mën a pare mais dañu teg dispositif de pompage boo xam ni donc dana mën a wàññi li nga xam ni moo war a indi gàllankoor ci biir kër yi.